yéen bëgg ngeen tegal nu ko ca loxo suñ bàyyi bu tedd ba yaakaaru addina bi tey ak ëllëg Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Sy yàlla yàlla yokk fanam yokk wéram bi jaay rasulillahi kaddu gi ma dooroon su ma amee ndigal continuer ko tuuti su ma amul ndigal daal di ko teg ci loxo kan ma digal kon am naa ndigal sëriñ bi nee na waaye bala maa continuer nag ndax yoon wi ma doon fàkk fàkk bi xajatu fi ndax dama doon bëgg a gis yoon wa fas seen sëriñ bi tiit ba fàtte yoon wa yumi sababata yumi sababata miqbaadan asaabiahu مثل المصبح يرنو العروة داهمم لقطاع ابن مثل المصبح يرنو العروة dagan na it sëy Maodo ne neex na sëy na Aboubacar ne dagan na lu neex te dagan na mata def te yàgg ca am na li tax maam si bil xaaj Malick kenn mënu ko fay xanaa la ma waxoon ci Tiwaawan rek lay delloo si laata muy tudd Seydul Xaaji Malik dafa jëkk a tudd an laaji Malik an laaji Malik xam-xam ba dafa fees tabaarakallah bare yaatu sal ñu nangu koo joxee jaamur ba ak ki mu jur la ci yemale li sëriñ bi doy doy waar ñu mujj maase ci lu nu umpalee an laa ji maalik ah am na seede loolu la mushkilaat ida azzat maaqiduha maxaduha wa lisaanu qawmi maaqudu xamul ko bind gun nga ci kaam parce que xaaj Mouhamadou Mansour nee na bàyyam Seydi El Hadj Malick Sy wal mushkilaatu yu lënt yi ci xam-xam ida azzat jamono joo xamee ni jafe na maaqiduha pas-pasi xam-xam waaw pas-pasi ne rab sëriñ sa dem ca ba ne pas-pas bi kenn mënu ko fecci bu ñu sukkee ci kanamu Seydi El Hadj Malick ni ko lii rek jaxluha daa di ko fecc mu leer naññ ni naññ mooy loolu xam nga nañ ñi ak gàñ ñi moom la ko yàlla jox xaj Malick fi mu rawee sëriñ si mooy gàñ ak nañ ñi xam nga gàñ ak nañ gàñ ñi mooy lu bari nañ ñi mooy lu leer lu ne gàñ ne nañ ñi fii def xaj Malick am na ko am lu ne gàññi waaye néewul naññi am ko am lu ne naññi mais néewul gàññi gàññi naññi si di xaj ma ala sayna saadaati ya rabaluna ñëpp def nii nu magal Seydi El Hadj Malick xam ngeen lu xew sama yoon wi bu ci kenn jaar dama bëgg ngeen bàyyi ko mu wax li mu wax ma dégg ko xëy daal bisu dee du bisu dund am ngeen ñànkatam am naa ñeex def leen ci mu sotti xaaja bay si maari nee na ayaa sayida saadaati xam nga ko wax wax jooju le saaxibul waqt qutbu zamani faridu asrihi góor ga ca béjaaw ba fadilati cheikh alxaaj abdul aziz si babba mataana lor bi tulli makaari ñëpp nag ñu ñu mag sëñ alxaaj malik cheikh alxaaj abdul aziz si malik nee na ko yaa sayida saadaati yaa ramanuda ma ndax loolu amul lu ko jiitu aya sayidi ndeke nitu yàlla soo ca bëggee jëriñu da ngay jël njureel teg fële jël maase teg fële jël jàngandoo teg fële jël àndandoo teg fële xam ni kii yàlla ko roof wilaaya nga ne ko kon sàng nga Cheikh Alhaji Abdoul Aziz jël njureel ji ko Seydi Alhaji Malick Diouf teg fële ni ko aya sayidi yow sama sang xaali yow sama najaay wa cheikhi day sama sëriñ wa waalidi nekkal sama wayjur malaani illaahi ci yow laa wéer sama gannaaw gi wa isni yaay sama chatu murshidi dëngu ma sax waaye alhamdulilah yaa may jubanti wa wasilati ci yow laa jokku ci an nga jokku ci alfaayi mayoro Mouhamad ibnu Abi Bakar ibnu Abdourahman mu jokku ca Cheikh Alhaji Omarul Futiyu mu jokku ca Cheikh Mouhamadul Ghali mu jokku ca Chamsul Wilayatul Kubra Barzaqul Barazaqi Tajul Arifin wa Mumbitihim Sayyidul Awliya Sayyid Cheikh Ahmed Tijani benn benn benn benn danaan màññi rek إلى الملك المعبود جل جلاله ayaa sayidi يا سيدي xam nga lu tax Seydi El Hadji Malick nekk sang dafa am ñuy gàllankoor nit te yàlla musal ci njaboot Seydi El Hadji Malick xam nga lu jafe dimbali nit jafewul dimbali nit ba noppi jeeti ko dégloo jafe مالي
bare na ku la dimbali waaye dootu la nangoo dégg dimbali nit yomb na waaye dimbali ba noppi jeeti ko déglu moo jafe Seydi El Hadji Malick ak njabootam dañuy dimbali nit ba noppi jeeti ko déglu dëgg moo tax ma ne Hadji Malick ku mu doon samp rek samp nga ku mu doon baaxal baax nga ku mu doon jàngal xam nga ku mu doon taal tàkk nga lu mu la doon tub xam nga nag luy gàllankoor taalibe xam nga ko ñeent rek la bu ko topp gënu la bu ko topp gënu la day gàllankoor taalibe bu ko déglu rawu la day gàllankoor taalibe bu ko ko jox da lay nax day gàllankoor taalibe tee ngaa fay mayu la waaye may mu ñeent yi may bëgg a wax taalibe bu tardé ci sa kër sëriñ moo la tardé yëkkati loo tudde hadiya waa koo jox kenn ci arifina billahi ñu ne la bu ko ko jox dalay nax te bu dul woon nitu yàlla sax faf fii kulli kabidin rotba lahu ashar yeneen ci bi neen lépp lu am rek di dund di noyyi ku ca def rek faf dundal ko yàlla fay la waxumaag muy nitu yàlla waxumaag mu bokk ci ummatu muhammad xeetu yonent boobu nga xam ne keroog ba yonent yàlla Moussa déggee la ñu am dafa ne yàlla wan ma leen lu ñu mel mu ne ko lan taraahum bëggoon nga maa gis ma ne la lan taraa nii dooma mën a gis nga bëgg a gis xeetu muhammad ma ne la lan taraahum mu ne yàlla kon nag loo may defal ci ñoom mu ne ko dama leen di woo kenn par kenn diw mu ne labbayka yaa rabb ne Moussa kooku ci xeetu Muhammad diw mu ne labbayka yaa rab mu ne Moussa kooku ci xeetu Muhammad la diw mu ne labbayka yaa rab mu ne kooku ci xeetu Muhammad la ba ñu jëf tàkk contestataires yi jóg ne nañu leen di wooye kenn par kenn ci de xajmaari ni yéen a cuune ki jël ku ci nekk mu jox la wër sa kenn par kenn mën naa woo ñëpp kenn par kenn ku ci nekk wax ak yàlla
كدين جفي كان أسيرا قيد كني ممل من يا سيدي
lii nag bu ma la ay assis bi dafa koy fàq woote booba ca tuuru siinaa moom la yàlla naan wa maa kuntu bi jaanibi tuuri id naadaynaa mu ne yow rasulullah yi ba may woo xeetu Muhammad kenn par kenn di waxanteeg ñoom xul wa ma ko doon waxee nekkuloo fa waaye maa la ko nettali moo tax alquran bare wa maa kunta wa maa kunta nekkuloo fa yow Muhammad waaye billahi maa la koy wax moo tax ñii dal ci kaw gàmmu lu ñu jum gàmmu du dara lu dul nettali li paase te rafet ku bëgg a def lu rafet jaar ci araj maa li fu mu jaar foofa la dëgg la waay ma ne ñeent yi gàllankoor taalibe bi ci jëkk mooy bu ko ko jox dalay nax yëkkati yiw war koo def ci nitu yàlla ñu ne la bu ko ko jox dalay nax xam nga bi ci topp bu ko topp gënu la waaw te bare na kuñ ko wax nga gëm ko te da ngaa cuune te defar sa junni morom ba ñu defar ay junni bu baaxee ba kàll la loxo yi dafa baax rek te woyof waaye dut sa morom waaw bu ko topp gënu la bi ci des mooy ku ko déglu rawu la xamuloo ni nit a ngi toog di déglu nit dégg ci lu muy wax loo xam ni ci koy wax déggu ko ca léeg-léeg mu am day Cheikh El Hadj Abdoul Aziz léeg-léeg mu jóg ci kuy gàmm waaye ñu ne ratee sëriñ bi xaal bi yiw ña xamul dafa ni gàmmukat bee foor gàmmukat bi fooru parce que moom mi ko wax mi ngi ne tekk taxaw si porte sëñ baa ca déggalum ca déggul moo tax moom mu yëngu yow nga ne kétt bu benn bis bu ne nit taxaw di wax am ku koy déglu dégg ca wax ja lum ca déggul moom may wax ñu naan nag bu ko déglu raw la bi ci des mooy tee ngaa fayu mënu la tee ngaa fayu mënu la ku yàq ca nga yàqoo aduna kuy tooñ du mucc kii fayeku du mucc ida raayta dawi dulmin faqul lahu ستنقمون وحاذ إن تساكنهم كمثلهم في الورى كانوا جبابرة فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم فأما الإنسان العاقل المميز مع علمه بجميع آفات الدنيا وسرعة انتقالها وغرورها لطالبها لا يحبها محبة نفسانية وإن النفس لآمرة بالسوء ويجب على الإنسان أن يعلم ما لبعض القلب ولا يدرك السدى كدواء على أبواب الهوى العقاب بل خلقهم لتكليف ثم الرجوع من هذه الدار إلى تلك الدار ليصيب المحسن ويعاقب المسيء لا فخر إلا فخر أهل التقى وغدا إذا ضمه المحشر يعلم الناس إن التقى والبر كان خير ما يدخر waaw madame de xam nga lu tax sa jàpp mu Cheikh Alhaaj Malick yaa sayidi déedéet lu tax xam nga lu tax de déedéet Seydi Alhaaj Malick dafa fay fekk fi ay daara mu dugg ci biir daara delloo daara ya ñu defe ni day jàng ca daara ya ñu dem ba yàgg daara ji mu jàngee mu gis sëriñ daara ba ne ko yaay sëriñ daara bi moo ko dem ba installé ci waaw xool yi fi nekkoon yépp xam ni boo ci dugal sa loxo doo ca am la nga bëgg mu ne kon naa dugal sama loxo ci ëttu rasulullahi mu cas xalima boxuri arab di way yépp mu fëgg ko yëlëb ko jóor ko rasulullahi am ci yi muy yëlëb jóor ko sayduna cheikh ahmad tijaani bii di basit nag mu def ci junniy wayeeg lu topp daaneele ko ay miim ya ñu naan miim ya mu def ko ci rasulullah bayti bi ma ubbi tey nag bala ma koy firi firil ma aya sayidi yow sama sang xam nga lu tax nekk sanga juróomi yëf rek la moom laa lay wax firil la aya sayidi nit bu bëggee nekk sang day góorgóorlu ba yaayam gërëm ko doom ji yaayam gërëmul toroxal ko yombal danga si baaraam dal nit bu bëggee nekk sang day góorgóorlu ba bàyyam gërëm ko doom du bàyyam gërëmul jox ko bàkke jafe na ñaar waaw nit bu bëggee nekk sang day góorgóorlu topp yàlla ku góorgóorluwul topp yàlla boo faatoo boo dajewul ak njëggal lakk ñett xam nga bi ci des bi ci des moo di ku ñuy sumbir daal ni ci bunt ku nekk da ngay joxe ku yor milliard te doo joxe kenn du la nuyu xam nga bi ci def mooy koo tane te doo ko dimbali mu réer la boo wëbbati ko di ko laaj te cuune nga yaa ko wacc boo ko doon dimbali rek gis ko ah ah waaw fi da xaaji Malick nag loolu la def ku mu tane dimbali na la waaw ku réer jàngal na la ku ko toppoon gindi na la waaye nag léeg-léeg nit ngoree di dog ko lu defante ko yàlla ci ngoree di defante ko yonent bi ci ngoree di mën na koo defante ak Maodo ci ngoree di yàlla ngi wax ci alquran naan doomu aadama dafa ngoree di mu ni lu tax mu ni wa innahu li xubbil xayri li shadid nit dafa bëgg alal ba moo ko yóbbu ci ngoree di yonent bi ne alladi yaakul waxdahu wa yadribu abdahu wa yamnau rifdahu dimbali nit mu wëlbati ko def la noonu yàgg na fi waaye darul Cheikh Alhaji Mali dalul njabootam tuddoon naa fi daaw ñetti baat du ma ko wax kër Alhaji Mali iñaanuñu iñati wuñu iñañañuwuñu tuddoon naa fi ñetti baat daaw waaw bëgguma ko woon a wax waaye daf ko laaj kada laaj Malick iñaanuñu iñatiwuñu iñañañiwuñu waaw xam nga iñaan de xamee nga ko iñati xamee nga ko iñañañi iñaan mooy yor loo mënatu la jëfandikoo ne bu ma ko naree jox waa ji na tuur ko ci poubelle bii te bëggatoo ko sax waaye iñaan a tax nga dem tuuri ko te bëggatoo ko iñaat yi mooy seen koy maye mu ne su bokkul moo mën a ñaan bu ko ko may kon mu teere iñaña ñi bi ko yées nag tëbal leen ni doomi soxna dafay séen kuy maye mënoo koo tere joti woo fa mu nekk nga yenu sa loxo di jooy nag waaye yaa ngi bee dana ko ko may waay darul kër si de xaj maay tanu la moo tax Cheikh Alhaji Abdou Aziz ne ko ayaa sayidi
يا سيدي
yow sama sang
خالي
tey sama nijaay وشيخي
tey sama sëriñ ووالدي
tey sama wayjur ملاذي
billahi góor gi ci loolu bi man Alhaji Abdou Aziz mooy sama wéeruwaay وحسني
mooy sama tata tata jee dëgër kenn mënu koo xeeb مرشدي
moo may jubbanti ba teg ma ci digg yoon wi ne nocc ci yoon way kondam kondam yi ba ci ëpp yàlla ووسيلتي te mooy sama jokkuwaay taxaw xaaji Malick ne sayiduna Muhammad صلى الله عليه وسلم
bokk na ci lu mu rawee waa àddina dafa ne cëpp rek junj baaraamam ba yoomi yoomi ay awmara suñ na xajmaari nee na yoomi na ngay junj moom rasulullah ak sa baabata baaraamu sànnikaay ba mooy baaraam bii ci digg bi bi mu ne cëpp àddina juddu dafa joxañ baaraam bi ci digg bi ñu ne laaj Malick nan la def baaraam yi ci des mu ni miq baaraam bon aji yëpp la moom yonente bi asaabi ahum mboolem baaraam yi ci des ati fiq ñëw ñu ne misal musabbih kam koy sabbal ci julli yarnoo ma ngay jax mu ngay xool al ulwa wàllu kaw daahima bi mbir mu mu nekk di borom yitt ci raa place xàll taxaw ku taxawoon place rafetal zoo ku taxawoon place jardunan bii ku taxaw place nasab mu ne za warfa bi waawin wansibanna bil alif wajrur bi yain ma min al asma asif jaa abuka wa axuka wa xamuka wa fuuka wa du maalin raaytu abaaka wa axaaka wa xamaaka wa faaka wa ba maalin مررت بأبيك وأخيك وحميك وفيك وذي مال إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المشرق غايتها dégg de yoon yi ma ngay junj moom rasulullahi asbaba tabara musannikaay ba mi tabaar dan mbir mu mu nekk di nga asabiyaahu baara mi ca des yëpp nit lal musabbix yi kam koy sabbaan ci julli yar noo mu ngay xool moom yonent bi alewal wa wàllu kaw rahima mi mbir mu mu nekk di boroomu yitte boroomam te kat yonent bi ni mu gën a ragale yàlla noonu la mu dàkk muhammadul ajmalu man
محمد أجمل من بشر حاتم سليمان
déggal boobu baytu bala mu ko firi dañuy fi tasu def iltikaas ba dootu ma dégg alal Bachir déggal sa bàyyi bu baax ba bàyyi alxaaji Mansour ca miimiyaam ba yaa rabiyatan bi si salam ترعى سيال والسلم هاجت علي لوعة تفضي علي بالألم كأنها من حسنها شمس تبدت في الظلم أو كوكب متحد يمت ضوء ضوء الجلم من محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
أجمل موجة رفت كان من كل في الكون te képp ku nekk ci dénd bi rasulullahi la dàq loolu makka bu ma sànni ñaq ñaq miy génne ci jéem yi day mel ne or bu ñu war wis ca xam nga lu tax jëmm jaa composé wu ci xaqiqat al muhammadiya فاعلم انه لما تعلقت اراده الحق تعالى بايجاد خلقه ابرز الحقيقه المحمديه بانواره ثم صلخ منها العوالم كلها علوها وسفلها ثم أعلمه بنبوته وآدم لم يكن إلا كما قال صلى الله عليه وسلم بين الروح والجسد ثم انبجست منه عيون الأرواح فهو الجنس العالي والأب والزوج لجميع الأجناس والأب الأكبر على جميع الموجودات ولمن انتهى الزمان بالاسم الباطن في حقه صلى الله عليه وسلم إلى وجود جسمه وارتباط الروح به انتقل حكم الزمان إلى الاسم الظاهر وظهر محمد بكليته جسما وروحا ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء ومن جملة ما كتب في ذكري وهو أم الكتاب إن محمدا خاتم النبيين محمد أجمل سيد القوم ناس الحاج محمد المنصور لا نترمام ينتهي محمد صلى الله عليه وسلم
محمد أجمل من في الكون خلد وشيئا
Baalaji Mansour nee na Mouhamadou yéen jàll Mouhamad ajmalu moo gën a rafet man fil kawni képp ku nekk ci diggante asamaan ak suuf rasulullah yéen a ëpp taar xalxan ca bind ba waxuluxan ak jikko ja wa siyam ak wala xeeti jikko.
خير نبي مرسل للإنس والجن يوم bala maa balaa fi di xayru nabiyin jaafaru sadiq toog na ci kanam rasulullah mu ne ko ashbahtani xalxan wa xuluqan suma raxasa jaafar jaafar bi ko rasulullah nee na niru nga ma ci bind niru ma ci melo dafa kontaan ba dóor poot ci kanamu yonent bi kon nag niru yonent bi ci la fexe nekk nga tax seen xaaj bari na ci ngeen moom rek lay jaar pour niru ko Muhammadul Ajmal man Muhammadu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam man fil kawni moo gën a taaru képp ku nekk ci dënd bi xalxal ci bind waxulu tan ak ci jikko wa siyam ak mboolem xeetu jikko xayru nabiyin mooy gën ji yonent mursalin ñu yónni ko lil ins ci nit wal jinni ak jinne yaawum ñoom ñëpp sunu borom nekk wa ma arsalnaaka illa kaafatan dellu ni ko wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamina mu ni innama ana rahmatun muhda baalaji Mansour ni kon xayru nabiyin حاج منصور لا نترمام ينتهي محمد sallallahu alayhi wa sallam خير نبي مرسل للإنس والجن يوم xayru nabiyin nee na ki tax ñu tant tant bi mooy ngeen ci yonent mursalin ku ñu yónni la lil insi ci nit ña wal jinni ak mbooleem jinne yi yaawum matale nañu de moom la yàlla yónni ci nit ku weex moom la yàlla yónni ci nit ku ñuul moom la yàlla yónni ci mbooleem xeeti làkk yi moom la yàlla yónni